asalaamaaleykum Mbàkke sab géewee lay nuyoo kuréel réew nag Babacar moo di aw turam ñu ngi leen nuyuwaat di leen siyaarewaat fi ñu leen baaxoo nuyoo rek ci seen site bu mag bii di 28 pro ñëwaat ci seen jataay bi ñu tuddee yeete ñu fas ci yéene ànd ak yéen rek ci waxtaan ñu ànd ak yéen ci koor gi di wax ci yi nga xam ni mooy ngëneel yi ak njariñ yi nga xam ni mënu ci ñeel ñu ngi leen doon junju laylatul xadar nga xam ni suñu boroom dafa wax ni xayru min alfi moo gën junni weer moo ko gën nag la mu ko gënee kenn xamul nu mu toll waaye moo gën junni weer bu boobaa dañuy xam ne rek dund junniy weer ci jamono ji sax yombul ndax juróom-ñett fukki at ak ñett raak lu teg kon loolu buñ ko seetee dund ko ci jamono ji ñu bari amuñu sens bi waaye ku ci dundal guddi gi am nga lu gën loolu lu gën nag kenn xamul ni mu ko gënee ñaata la mën na koo gën a sax lu ëpp loolu bu ko defee kon lu mat a bàyyi xel la laytu xadar itam boroom xam-xam yi wax nañ ci lu baree bari waaye ñi ëpp ci lu wax daal dañ wax ni nañ ko seet ci fukki fukki we fukki fan yu mujj yi ci war ci koor gi xam ñoo xam loolu lañ wax am ñoo xam ne dañ ko jàpp ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yi waaye bu dee fii ci Touba nga xam ne tënk boobu nga xam ni bari ci borom xam-xam yi moom lañ wax te sëriñ bi def ko benn tënk muy lakkasun niyatun wala liyatun sahakun rayas xakkajun jukkatun sahakun mayas nga xam ni boo xoolee tënk bi bis bu weer wi teru rek weeru koor gi dangay daal di xam ban bis lañ war a du xadar bu fekkee lakkasun la lak yi mooy laxdi kasun lay doon mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar bu dee lis nay ni muy liyatun walla niyatun mu nekk yatun muy fukk ak juróom-ñeent bu dee sa nag muy salaasa comme ren nga xam ne talaata lañ lañ um xëkkun lay doon muy ñaar fukk ak juróom kon nga xam ni ren ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki guddi ak juróom mooy nekk laylatul xadar ci ni ñu koy jàppe waaye nag bu ci doon tam guddi ajuma lay doon xam nga wax nañ leen ne ajuma moo gën ci bis yi kon bis bi gën ci bis yi itam buñ ko jàppee ci bisu ajuma xel dina ko nangu lu ci bari nag mu nekk luñ luñ nëbb loo xam ne dañ ko nëbb ngir bëgg rek ñu góor góorlu jéem ko dàkk comme ni nga xam ni ni la ñuy waxee ne dañu salaatul wastaak yu mel noonu dañ ko nëbbu waxtu wi nga xam ni ci ajjuma boo ci boo ci ñaanee suñu borom nangu sa ñaan xeet yooyu nga xam ne dañ ko nëbbu parce que bu ñu waxoon ni waxtu sàngam la rek mën naa am ñu mel ni man nga xam ne dañ tàyyal dañuy bàyyi ba booba rek ñu def li ñuy def wala di dabu di dàkk promotion yi waaye dañ ko nëbbu kon dañ ko war a jeex ci weer wi yépp rawatina fukki fan yu mujj yi nga xam ni fukki fan yu njëkk yi ci koor gi yërmande la yi ci digg bi doon njëggal yu mujj yi doon ak jot ci sawara bu boobaa nag dàkk ci leelatu xadar te yaakaar naa comme tey la ñaar fukki fan war nañ góor-góorlu yokk xiyaamu lay lii naafila guddi yi ñu bañ ko sàggane di bañ a topp connexion bi guddi gi rek ak sena bi ak yooyu noonu ndax <laughs> yooyu moom fi ne dafa bokk dafa bokk ci dund gi faw ñu koy sóoraale ndax mënu ci ñàkk dafa ñëw dugg si dab ñu ba noppi bokk waaye nag bu ñu ko toppee bu mu ëpp rek dinañu xañ lu baree bari ko defee laylatul xadar nag suñu yaay Aysa yonent bi sallallahu alayhi wa laajoon na ko ne ko bu laylatul xadar yi ñëwee lan moo gën ci lu may wax mu ne ko dangay da ngay wax ne allahumma innaka xafuwun tuhibbul xafwa fa'fu anna yow daal yow suñu boroom yaay ki nga xam ni yaay jéggale waaye nag ku bëgg a nga xam nga nit dina mën a di ko tooñ mën la baal ba nag du la bëgg baal waaye ki la mën a baal ba noppi bëgg laa baal mu ne ko nag fax-faxaanaa kon nag nu jégal kon loolu mooy li nga xam ne bu laylatul xadar ñëwee wala guddi gu jot ci koor gi rek mën nañ góor góor li ko wax ay yoon yu baree bari ngir buñ ca tombee rek suñu borom jéggal ñu te ak njëgal rek lañuy wut ak ngërëmul yàlla ci àdduna jàmbu ne loolu la fi sàkku ndax nit ki lu mu am lu dul ngërëmul yàlla rek daanaka dafa pert Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daf doon wax ni yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la kon ngërëmul Sëriñ tubaa mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla itam lañ doon sàkku ci sëriñ bi bu fekkee nag lu mel ni koor dafa ñëw nga xam ne ci lañ wàcce alquran laylatul xadar nekk ci biir am na buur bu ñu doon wax samsun samsun suñu maam jooju sëñ baara si la di ñu ko nettali yal na ko yàlla yokk wér muy wax samsun day laa mu ni ab waaye la bu mën a xeex daan xeexe nga mu gëléem am doole lool nga xam ni dafay ne yàlla daal boo ma dimbalee dinaa la xeexal junniy weer mu yor ngaamu gileem di ko xeexal suñu boroom di rey noonu suñu noonu yàlla yi noonu lislaam yi di xeex di rey noonu junniy weeram yooyu nag lañuy wax ni boo màggalee génn guddi gi moo gën junni weer yooyu noonu junni weer yoo xam ne kooku daf koo xare ci yàlla xam ne Samson ni ñu ko suñ maam jooju nettalee dafa wax ni ku am doole la noonu mënuluñ ko dara waaye dañ ko pincé ci soxnaam kon xam ngeen ni soxna lu doy waar la bari na ci histoire ay buur ak ay kilifa ku mel ne Xoseynu wala xasan xasan ñoo xam seen soxna moo leen war jox leen posen wala yu mel noonu samson dañ koy yeew likkitoog soxna si bu soxna si jëlee ceen bato wala ceen gu gën a dëgër yeew ko bu yeewoo bu fippoo rek ceen gi dagg ngir am doole léegi nag soxna si ne ko yow daal ni nga amee doole kon yow kon ku lan moo la mën a yeew mu ne ko man de sama karaw rek moo ma mën a yeew ndaxte boobu soxna si dañ koo teg diil la buñ ko tegloo bi mu nelawee nag soxna si dagg karawam daat koy yeew bi mu yeewoo nag fippu fippu munta jóg mu ne ko a ah, jekku nga ma nag dafa ni day kaf ndaxte booba noonu ñoo ko def loolu soxna si daal woo noonu ñu ñëw ñu xam ne suñ maam jooju suñu baara si la bu ñu koy nettali ak xorom si yal na ko yàlla yokk wér muy wax ni dañ koo jàpp buñ lellee bëtub ndeyjoor bi teg palaat daal di naan sàngara fecc yu xoloo ba neex leen ñu lelli bëtub càmmoñ bi léeg-léeg ñu dagg nopp bi léeg-léeg ñu dagg benn loxo bi di ko def yu bon yooyu noonu ci koo xam ni loolu la xeexal yàlla nga xam ni àdduna lu bon yàgg na fi léeg-léeg sax wala fii di wax ni lu dul dëgg du yàgg waaye damay wax ni iblis bari na yonent yu mag <laughs> iblis iblis du dëgg te yonent yu bari moo leen mag te moom caaxaan yi mu ko fi indi kon dëgg ak caaxaan ñoo ñëwandoo woon ci àdduna ñoo fi nekkandoo woon ba àdduna sukki ñoo fi bokk jógeendoo te jàppaguma ni sax maanaam dëgg dina mën a gun caaxaan waaye nag lu metti metti dina am ñoo xam ne moom seen tànk ci dëgg rek lañ koy teg tey ñi nekk ci dëgg toujours ñoom la yàlla di àndal kon nag boobaa dañ ciy xamee ne rek boo wéetee ci dëgg ak nga wéttaliku ci ñooyam yow li nga nekk yaa yàlla yéen ci ànd nekk loolu la yàlla digal loolu mooy l'essentiel bi kenn ku ne safarata mooy nekk ci li nga war a nekk du xadar moo ngi noonu bu ñëwee mu war a tombeek alxames bii di ñëw incha allah di ñaar fukki fan ak ñeent ci koor gi tombeek xëkkun muy ñaar fukki fan ak juróom waaye xam nga comme guddi gi lañuy ñuy màggal dañ koy def ci alxames di xëy di ajuma guddi ajuma gi bu jotee ak guddi ajuma yi yëpp ak fukki fan yi yëpp rek kenn ku nekk na ci góorgóorlu lépp lu mu doon def mu yokk ko ku mën a fanaane naafila mu def ko ku mën a jàng xasida ku mën a yokk ay saraxam ndax itam sarax dafa nekk lu am solo rawatina ci weeru koor ndax am ñoo xam ni dinañ woor dinañ am yéene waaye bu dog jotee duñu am lu ñu xewloo léeg-léeg dañ koy lijjanti am ñoo xam dañuy woor ba noppi doo ko dem lijjanti ci ndogu yooyu nag boo dee sarxe waxuma nag comme ay ñetti guróog ñetti tàndarmaak ay ñaari tàngal ak i socc waxuma yooyu ay yi nga xam dañ koy wëndeel ci bopp waaye damay wax lu am solo laay wax loo xam ni boo ko joxee nit ki dina ko mën a jariñoo lu mel ni ay kilo yu suukar kilo yu tàndarma saaku ceeb wala ay kilo ceeb yoo xam ni nit ki bu jotee dina ci mën a jëfandiku ab diir bu yàgg ci koor gi xelam dina dal ndax jël benn tàndarma rek nga jox ko benn jullit wala benn tibu ñam moo gën tabax nuy jàkk léegi nag da ngay gis ku yor xaalisam bu bari di tabax ay jàkk di dem màkka ak ñëw di yóbbu ay nit màkka loolu lu baax la lu baax la waaye day fekk ni day bàyyi toolam ci ginnaaw kër gi muy boy wala ni ko wolof yi di waxee ku sa jatti doyut doo booyal ku sa jatti doyut doo booyal léegi nag dangay gis ñoo xam ni dañuy gis yor xaalis walla yàlla ma ne leen gan ñoom ay kër yu ñu dendal yoo xam ni xam nañ ni ñii seen loxo jotul seen ginnaaw nañ war a mane ne wuñ ko noonu waaye duñ def foofu waaye dañuy def rek ci média beeg ñu siiw ñi wala yóbbu nit màkk mu ni diwoo ma yóbbu màkk yooyu yëpp baax na tabax jàkka ndax julli di am fuñ jullee waaye ñiy julli si ci jàkk ji bala ñu julli si dañuy am lu ñu lekk mbokk yi kon fexe ba ñi nga xam ni ñoo war a dund ñu dund ñëpp nekk ci jàmm dañuy wax ne Sénégal ñu war a génnee asaka bu ñu ko génne woon rek ci normal te jox ko ñi ñu ko war a jox rek léegi ñàkk jóge fi waaye asaka bu fekkee da yi génne sa asaka mu toll ci nangami million nga def ko ay ñaari junni ñaari junni wala juróomi junni juróomi junni loolu sarax la loolu ay caaxaan la rek bu fekkee ke da génne génnee asaka mu doon fukki million da ngaa waroon na xool ñaari commerçant yu ndaw kenn ku ne nga jox ko juróomi million ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ñooñu buñ amee départ juróomi million bu déwénee ñoom dañuy génne asaka waaye duñ duñ duñ laaj asaka fu ne bu ñi doon génne asaka ñëpp doon def noonu wala ñu seet fu ñu ko organiser di ko fa dajale bu ñu génnee asaka yi am na ñoo xam ne fi mu seen asaka ay millions yu bari lay doon ndax seen am am foofu la toll bu boobaa nag bu ñu ko génnee dajale ko bu ñu seetee ñi nga xam ni <laughs> am naa benn <laughs> waay boo xam ne nee na ñuy lekk asaka moom kenn génn ko ci daal ndax moom nee na asaka daal moom lañ ko war a jox ma ne ko lu tax loolu mu ne aaya bi daal ñi mu wax ñëpp kenn génnu ma ci ñi aaya bi wax ñëpp sama kaw la daal ndax inama sadaqatu lil fuqara wal masakin neen daal ñoom ñëpp moom li bëgg wax rek mooy ku ci lot nee na aaya daal ku ci lot la naanaan lañ ku ci lot la waxta moom lot na ci waaye fi mu ne bari na Sénégal ku mënta génne asaka rek war nañ laa jox asaka ku mënta génne asaka rek war nañ laa jox asaka kon nag dafa mel ni asaka ñi ci mucc bariwul waaye façon bi ñu koy génnee moo baaxut dañ koy génne di ko def ay ay pàcc pàccaat yoo xam ne amul kenn njariñ loolu du woon philosophie bi ko taxoon na jóg yooyu yëpp nag ci jëf daf ciy am solo ci ki nga koy jox dina wax ne mu jógee bu fa wàññiwul dara fa mu jëm du fa mën a jariñ dara am na itam dimbali nit ki itam du nekk rek chaque jour nga koy may jën waaye da fexe ba mën a napp fexe ba mën a am jën yooyu mbokk yi lu am solo la laytu xadar daal xam naa ne liñ ci bëgg a wax maanaam mooy bisu promotion la boo xam ni bu jàllee déwén rek ngay mën a amaat bisu mel noonu tey déwén déwén yàlla mbokk yi donte tey tey yàlla waaye wala fi ñooy waxe noonu déwén déwén yàlla kenn xamul ndax dinañ fekk wala duñ fekk ndax kenn ku nekk am na ñoo xamoon daaw ñu nekk fi dara fekku leen fi comme am nañ sansu fekkee ko buñ ko fekkee nañ ci profité ba mel ni tey lañ koy mujj def ngir lépp lu ñu xam ci lu baax ñu def ko ngir bu yàlla dogalee fekke wuñ ko it fekk li ñu waroon def ci lu baax lu ci bari def nañ ko bu fekkee ñu fekkewaat ko ñu góorgóorluwaat defaat noonu rek waaye jullit daal li mu war a def mooy lépp jëf ju baax ci muy def mu mel ni jëf jii mooy jëfam ju mujj bu fekkoon daa taxaw tey ndax Sëriñ Tuubaa mi ngi ñuy wax ni waar xabul asiyaa lil amwaati radun ila dunya ma al hayaati muy wax ni ñi faatu de doon nañ xëddewoo di ñaan seen boroom ñëwaat ci àdduna wala soo sooyaatan benn donte benn saala pour ñu saraxe wala ñu tudd yàlla wala ñu wax dara lu def dara lu baax ngir mu mën leen a jariñ kon nag ki nga xam ne moo nekk di dundali nekk ci jamono kooku nag góorlu bàyyi xel baax baax ni mi ngi ci temps boo xam ne bu am solo la te temps dafa seer mi ngi sifflé arbitre sifflé ku gaaw a dugal bii bu arbitre sifflé rek mu jeex boobu dootu mën a jàll kon da ngay xam ne da nekk ci lu am solo nga profité lépp lu baax loo mën a def muy saraxe muy tudd yàlla surtout sikar sikar julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu am solo la julli ci yonente bi sallallahu ala muhammadin julli la gu gàtt waaye ku ko wax ñu jégal la te gone mën na ko jigéen mën na ko donte wird bari na ay danse bari na yu ñu ci ragal waaye julli ci yonente bi moom amul benn danse da nga koy def di gën a rafet nit ñi di la gën a bëgg ngay gën a am bayre sa liggéey di gën a dox ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bunt bi moom la suñu borom maanaam d'accord wax ni nañ julli ci moom mooy ndigal li inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima léegi nag suñu borom ak i malaakaam dañuy julli ci yonent bi waaye bu xoolee julli googu moo wax sallallahu ala muhammad day nekk ñeenti muhammad te Muhammad ñeenti yoon la turam ñëw ci alquran muy tur bi dëggantaan bu ko defee kon bu ñu xoolee 92 fois 4 daf lay jox 368 mooy sallallahu ala Muhammad kon mën nañ wax ni julli googu mooy julli gi suñu borom julli bu ko defee nag yooyu kon dafay nekk lu am solo ñu gën ko fonk gën a fonk julli ci yonente bi moom bu la neexee nga wutal ko lim boo man 368 baax na 92 baax na bu la neexee loo ci mën lu mu bari bari baax na bu la neex nga def bilaa adadin di julli ci yonente bi rek ndax lu mu gën a gën a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo tooñee yàlla boo jullee ci moom yàlla jéggal la suñu maam Adama bi ñu ko indee àdduna ngir lim defoon bu laal garab gi mu laal ko def na lu ne waaye dafa julli ci yonent bi suñ borom jéggal ko bari na yu baree bare bu ngeen demee ci miim yéen ko sëriñ bi waxe yonent yu bari bi amee jafe ci dara jo bi leen suñu borom jéggale seen jafe-jafe ak seen la doxoon seen diggante ak seen borom kon nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax julli ci yonent bi te farataal ko xasiday sëriñ bi ci bari buñ ci delloo dafay nekk rek salaatu sitta bi mat si sitta kon julli ci yonent bi dafa am solo te xasida gi lu muy mën a wax ak lu tax a jóg sëriñ bi bu tuddee yonent bi balaa jàll dina julli ci moom kon julli ci yonent day farata rawatina murit murit dafa war a farataal julli ci yonent bi kon murit bu nekk war na fexe ba lum néew néew bis bi mu am lim boo xam ne dina ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.